bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yi ak xarit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu président directeur général mbooleem directeur ci biir kër gi di nuyu tout le personnel de TFM rawatina nag sax RFM parce que ñun xam ngeen ne suba teel bi yéen ci seen bopp dangeen di am bànneex te yëg nañ ko bu ñu fusionné tele bi ci rajo bi rajo bi ci tele bi ñun ñëpp dem nañu ba miin ko kon dañuy ñaanal yàlla groupe GFM ci biir ñaanal yàlla boobu ba tey dañ ciy boole ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi. ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen gudd fan bu ànd ak wér mucc ak mucc lee macha allah ziyaara bu baax a baax sukk ci seen wet ñoo ñu may bëgg a tudd mooy sunu ay xalifa généraux ñu ngi ci boole cofeel guddul jeex di sàkku ci ñoom ñaan macha allah di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool te wér ndax seen taxawaay rafet na lool ci biir réew macha allah yàlla dool leen lépp loo xam ne rek dafay yombal nekkinu doomu aadama bi bu ko defee itam mbokk yi ba tey dinañu dugg ci biir clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di massalu coono ñi nga xam ne ñooy malade yi yàllaay tege nattu te ku mu ko teg rek dafa am lu mu la naral liggéeyloo macha allah ku yàlla namut a fay du la liggéeyloo yii yëpp nag macha allah dafa bokk ci àdduna nanu ko nangu te tàllal loxo sunu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wéral leen wéral bépp malade bu nekk di ñu seetaan bu nekk di ñu dégg am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy dégg gisuñu ñu am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy gis te dégguñu ñu ànd ak lu mën ci am yal na yàlla dolli jàmm salaamaaleykum ñi nga xam ne ñu ngi ci prison yi macha allah caabi féete leen gannaaw nekkin wa léeg-léeg doy waar lool waaye yàllaay tege nat moom rek lañ leen di wax ku fi nekku ne di nga ñam ci fii am mooy les hauts et de la vie waaye boo ko muñee incha allah yàlla dana ko jeexal yal na yàlla gaaw jëlee leen ca bërëb yooyu ku ci nekk nag am na lu la fa dugal yow rek ak sa borom yaa ko xam ngal bu la fa jëlee macha allah yàlla boo ci dellooti ña nga xam ne itam nattu la bu neex rek sunu borom mu dugal leen fa ñu ngee ñaan yàlla mu dikk faj lépp macha allah di ñaanal ñi ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu dina dinañu fàttaliku sunu ay wayjur bopp sunu ay wasila sunu ay soppe ñu ngee ñaan yàlla mu yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe fàttaliku bu baax sunu maam maam Cheikh Tidiane Sy Al yàlla yal na yàlla dolli ko leer macha allah Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke sunu soppe bu mag ba. bu ñu doon toog fii dana nu liim dana nu liim du nu pare na ñoom ñëpp a ngi suñu xol yal yàlla yërëm leen bu Kunta Njaasaan xel day dem ci moom macha allah ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax yéen itam ngeen yàgg fi lool te wér weer bu ànd ak dal weer bu weer ànd ak jàmm weer bu ànd ak sutura bu dul jeex sutura daay man moom leen leen di ñaanal di leen souhaiter itam une bonne journée en compagnie de la télévision Futur Média votre télé à vous taillée à vos mensurations comme ni nu koy waxee Ndoye Bane maa ngi wax yow itam bismillah jaajëf Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada ci yëpp di jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin ba tey waajal sunu màggal gii di le 3 incha fa fële ca Touba Mbacke Guédé. Mhm. di ziar jullit mbokk jullit yeeg mbokk taaliba yi ci naara dem yëpp yàlla yóbbu leen ak jàmm. indiwaat mhm. leen ak jàmm. amiin di ziar waa Pire sunu xalifa ba sëriñ Mansour Cissé sëriñ Maodo Cissé ak euh, moom parent Djibi Diagne uh-huh. ak monsieur le maire Baye Bado Dieng ñëpp ñu ngi leen di ziar tous les notables de Pire Gouray waa adduna bi yàlla nañu am jàmm waa Sénégal gépp yàlla nañu am jàmm moodu moodu yeneen bitim réew di wuti ay koppar indi ko ci réew mi yàlla na leen yàlla may ay koppar yu bare bare bare bare waaye Samba Alaar yi ci plateau yi tamit war nañ cee ñëw ndax temu Samba Alaar lañ génn bërki démb plateau bi am Samba Alar bu mag bu fi ne boo xam ne bu yàlla vraiment Samba Alar moom du dem du dem àjjana moom waaw loolu moom. mën nañu koy waxatee ji fii jaafaan jëf ko mu ci. ah ku ci digg bi la ku ci digg bi la. lu mu la def dala tooñ. dala nit ñi yeewu. asalaamaaleykum ba nee naa la. ay jàmbur ñëw fi yow yow kii Ndiaye Diatta. bisimilah maa ngi lay nuyu. ndox daal bu jéggi pax. tey ndox jéggi na pax. lakka naqari yëpp dafa bëri yeewu tey sa sponsor yi ñu wuy la woo leen woo leen. woo say sponsor sponsor bi ma gën a jege nii nga jiw nga yor xaalis bu bari. am na ay ay cinquante mille cinquante mille nga koy joxe di di ko may nit ñi tam ca ay cattu nga ah, man nag. cattu tabaski laa a tabaski. mais fii tabaski gisuma cinquante mille. daf ma iñaane de ci àdduna bëgg mu agsi ah, moom yaa Seyda yaa fi nekkal diine ji li mu ba ah. pare jox ma man mii man mii la bëgg ña ma amal bor ne Eva nanu fay gaaw ndax yor na ko man la yàqal. bi de moo jóge Màkka xam nga rek tëju. est-ce que xam nga man façon yëpp moo tax ma bëgg la. ah nii nii waaw waaw yemoo rek ci yaa Seyda. Ah, da nga def yaa Seyda def plus. Ah, waaw waaw ci Fatou Bintou di def. <laughs> aywa bisimilah bisimilah Dia macha allah euh, Eva ñu ngi lay nuyu di la ziar. aouzu billahi mina shaytani rajim. Euh, bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi alladi manna ala ibadihi bi bixsati xayril mursalin. yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal xikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin صلى الله وسلم على المبعوث الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Eva ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di kontaan ci dalal bi nga dalal ci plateau bi di ndooy baat macha allah rabbi ak soxna si macha allah bu baax a baax jërëjëf madame Fall Kormara laa ko tuddee mm-hmm. ah, soxna Ndiallo Ndiaye gën ci njaayee ni ma sagalee la ko bisimilah neex na ma neex na ma <laughs> may wax rek asalaamaaleykum aleykum euh, nuyu senegal gi yëpp mm-hmm. di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp macha allah mm-hmm. di nuyu fa ma jógee muy waa Gueule Tapée mm-hmm. di nuyu Adja Marème Diop ca Yoff sama yaay booy di ko ñaanal gudd fan ko ànd ak wér ak sutura di kontaan lool Eva ci dalal bi nga dalalaat tey ça me fait plaisir di bokk ak plateau di gërëm it Ndoye Bane sama xarit bi di ko nuyu di nuyu yaa di la wax bisimilah. jërëjëf kontaan naa trop. itam dañu lay wax bisimilah di ko wax madame Fall ne ko bisimilah. di ko wax itam kii soog a jàkkaarloog ak ñun te kontaan lool ci émission bi ne ñëpp sax mënuñoo woote waaye ñu ngee jot bu baax a baax a baax témoignage yi nga xam ne yéen a ngi ñu koy defal macha allah yal na yàlla fay leen mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05. bu ko defee ngeen mën a bokk ci émission bi thème bi nag mooy le viol dañu koy gis loo xam ne la man nee naa yenn yi booy wax ne actualité la sax da nga doon ñaan yàlla mu nekk lu baax waaye nag gannaaw àdduna lu ne da cay am dañu koy nangu rek tey ñaan yàlla mu jële ko fi nu mu gën a gaawee am na ñoo xam ne tayeef la ci ñoom am na ñoo xam ne danoo feebar te nanguwuñu ko feebar nag boo ko nanguwulee faj ko dana jafe lool lool lool ne doo wane sa bopp ñaaree da ngay dëkk ci nëbbatu di def loo xam ne buñ la ca fekkee gàcce fekk la ca macha allah am na nag koo xam ne moom dafa yàq boppam moo tax ñuy wax ne lu waay di foowee na doon lu baax ne da nga foowee lu bon ba fa yow mu lakk la kon boog nañu ko moytu bu baax a baax ne ku xool xale bu am ñetti at nga nga nangoo àgg ci moom ah man de xaw ma sax fu ma lay dugal mbon la feebar la wala lu mu munti doon danaa may occasion dooy baal mu wax ko bu baax a baax ca kaw bu ko defee ngeen mën a dégg ne barki Dembo Ndiaye tegal na leen reportage boo xam ne dafa yéeme lool te saa bu nu xëyee suba teel rek bu ñu demoon wóor nañu ñun ci dëkk dëkkaan yi wax dëgg yàlla dékk suñu nopp dinañu dégg loo xam ne loxo day dem ci gémmiñ subhanallah subhanallah subhanallah yal nañ ci yàlla musal doy baan ñu ngi waxtaanee mbir mu doy waa muy muy le ñaare damay dégg ngay wax ne yenn yi bu ñu jëloon xaw ma ñaata góor damay jàpp ne lépp teyef la lu ci feebar du ci ëpp ñoo ko da ngay def lu ñu weng ba pare ñu wutal la ay këyitu dof naan da dof ay wéro yu kenn xamul mm-hmm. fekk mbir mi ba nga koy def boobu mm-hmm. amoo woon këyitu dof yi ñu defaral la këyitu dof daaj koy antidaté ko génne ko loolu yëpp am na ci dëkk bi fekk dofoo dina jàpp la fi nga bàyyi sa yaay bàyyi bi say sœur yekkataan doom bi jàmbur ñu mm-hmm. naan da ngaa dof su fekkee da ngaa dof koy njëkkil ci sa waa kër ñi teet sa waajuru jigéen wala sa rakku jigéen mais am na ci ñoo xam ni dañ koy def koo xam ni seen rakk bu jigéen lay doon am na ñu koy def seen doom am na ñu koy def seen ay dëkkandoo am ñu koy def façon bu nekk. Mm. mais ki koy def doomam moom du fi bàyyi dëkkandoo. ki fi ku koy def rakkam du fi bàyyi dëkkandoo. ki koy def euh, nu mu tuddati élève am. Mm-hmm. wala wala wala wala wala am ndongaam kooku du bàyyi ay ay ay ay dëkkandoom. donc en général comme ni ko femme bi ko femme bi ko bi fi toogoon démb li wax benn xale boo toog de soxna Anne Marie ñu ngi koy remercier jékki rek ni ñu ne xale bi dafa ragal diw nan lijjanti lan moo tax mu ragal ko te du papaam du yaayam xale bi ragal ko rek eh dañuy woo diw de dañuy woo diw diw moom moomu lan la d'accord xale bi war na ay ragal et tout mais ragal à ce point y a quelque chose donc laisser assez aller bi ba jël sa benn doom bu jigéen wala jël sax sa doomu góor ak ak ak ak bi dëkk bi ni mu demee nii. Mhm. libéré ko benn waay noonu rek. te déemoo gëstu jéemoo xool mhm. tamit loolu problème la mhm. beneen bi mooy bépp fépp foo xam ne ay jigéeni kese dañ fay dajaloo ak fépp foo xam ne ay góoru kese dañ fay dajaloo parents yi war nañ ci di bàyyi xel su sa doom demee école xale bu ndaw dem école dem ay colonie dem ay jardin yooyu su ñëwee léeg-léeg day bàyyi xel sa doom bi mhm. parce que ñan fay dem yar bi nga yar sa doom ak yar ba ñu yar ñii mën nañoo bañ a bokk ñu daje di benn place benn kenn ku leen mag mën na faa nekk mhm. doon élève ni ñoom di leen noggutu ci biir te mhm. maître ba leen di jàngal du ko xam c'est la même chose ci la même chose ci biir daara yi sëriñ ba mën naa doon sëriñ bu baax oustaz ba doon oustaz bu baax mais ci biir daara ji mu am ci ab xale benn xale boo xam ni dafa dëng di def naka su dul noonu te sëñ bi du ko yëg bis bu bis bis bu affaire bi ne teel a kalaate su ko def sëñ bi du ci génn mm-hmm. su ko def defee ñu naan daara yi nangam daara yi nangam toujours ma waxaat ko école yu baax yi uh-huh. ñu ëpp fuuf école yu bon yi daara yu baax yi ñu ëpp fuuf daara yi nga xam dañuy def naka su noonu uh-huh. sëriñu daara yu baax yi ci réew mi kenn xamunum dool kenn mun leen a compter mais léeg-léeg mu am ay benn ñaar yoo xam dañ leen di rax ay soi-disant lañ leen di tuddee di ci def naka su dul noonu ci élèves yi ci ndongo yi wala benn sëriñu daara ba sax baax lool am benn taalibe bu nekk ci seen biir rax leen di def na su dul ci côté enseignants yi wax naa la ko démb si côté zone sud bi ay Sédhiou ay ngara côté yooyu chaque jour nga dégg ñu ni benn jàngalakatu français def na nangam ab élève am toujours ñu ñu ñu koy dégg donc loo xam ne nag moom day am ci biir kër yi di am ci daara yi di am ci biir école yi lu ñu war a waxtaane lay doon lay doon jàkkaarloo dans le blanc de l'œil waxante dëkk que ni lii mi ngi ci dëkk bi ay at ñu ñu ngi koy wax nit ñi di ko cof te xam nañu mbir mi fa ne mm. nañu wax mbir mi fa ne mi ngi biir kër yi la déparé tasaaroo ci dëkk bi. très bien voilà. jërëjëf euh, soxna Miandou boo amee élément xam naa ci kanam rek ma jox la bu ko defee ñu dikk ci dana gën a yaatal euh, waxtaan wi. Seyda nu ngi lay nuyu euh, di bëgg xam ci saa si lan la sunu borom wax mhm. ci lu nu mel parce que jël sax loo moomul suñu borom wax na ci mhm. dafay daal di ànd ak wor parce que àndul ak bëgg-bëggu nit yi te lu ñu loo xam ne ci société boo ko defee ñu gisee ko lu ñaaw mhm. ah kon boo mbir mi dafa yaatu lool mën nañ caa wax mën nañ caa wax boo ca doon commencé fan lay doon macha allah soxna Eva hmm. su ma ci doon commencé comme ni ko Ndoye Bane waxee rek mbir mi ñunu neen la te xewewul lu dul fii ci suñu réew ñun ñoo koy def mhm. jarul ñuy sori xam nga bu des fois dañuy wax ne lu fi xew rek ñu ne étranger yi ñoom ñoo ko fi indi waaw mais ñu yàkkataan ci biir kër yi lañ ko tàmbalee mhm. waaw da ngay jur sa doom gis ko muy def ay yenn jikko yu sew sewaan nga xam ko ci moom ba pare di ko nëbbal Eva dëgg la te nit soo ko bëggee doo ko mm. nëbbal ndax dañuy wax ne bant buñ koy jubbanti Eva dañ koy jubbanti ca ba muy tooy mais boo bàyyee ba mu wow nga bëgg ko jubbanti dafay damm ngay gis euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne seen doom yu góor yeeg yu jigéen ñi sax bu ñu amee juróom-ñeenti at nangeen leen xajjat la fi ñuy tëdd. juróom-ñeenti at juróom at 9 ans. Mm. kon loolu nga di ci jàngat na ki nga xamante ne ni moom moo jur ay njabootam. Mm. suñu borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne kenn ku nekk sàmm nga kullukum raa'i Mm-hmm. wa kullu mas mas'uulun an raa'iyatihi mm-hmm. kenn ku ci nekk sàmm nga mais bu yow mal xiyaama yàlla dina la laaj li nga doon sàmm noo ko sàmmee da ngay rendre compte si da ngay rendre compte kon sàmm boobu mi ngi tàmbale ci sa ay doom yi nga jur ci biir kër gi war a jël ay valeur yi nga xamante ne moom la islaam soxla nga jox ko sa ay njaboot nga tàmbalee ko foofu ci biir kër gi mm-hmm. yow nga gis sa doom muy jëf am comportement boo xam ne wóor na la nit kii li muy def nekkul comportement bu jub mbir la moo xam ne ku ci teg sa bët xeeb ko nga xam ko par dëgg ci sa tànk di ko nëbbal mm-hmm. njaboot kenn warul warul nëbbal ay doomam moo xam yaay la moo xam papa la mm-hmm. surtout yaay yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir kër yi nga xam ne ñoom ñoo jur doom bi mm-hmm. da nga gis sa doom bu jigéen bi mu wóor la ne kii li muy def ni jaaduwul wala sa doom bu góor bi mu jékki-jékki yëkkati sëru li nga xamante ne mooy sëram mais tàpp ko ne ko góor du yëkkati sëru jigéen. tegal ko loxo ne ku lii nga def. moo tax ma defee la ko nii. waaw mbir nit su defee benn affaire fa mu ko defee foofu nga foofu nga ko foofu nga koy corriger mais soo ko bàyyi wax yow xool ko mi ngi yëkkati sëru magam bi di yow xool ko mu yëkkati sëru daf ko ay ree di ko ree xam nga ñun dañuy gis ak mbon loo xamante ne wóor na mi ngi tàmbali ñu dëgg ci suñu tànk bàyyi ko muy màgg di màgg di génn ndànk-ndànk bu ëllëgee loolu loolay waral nga génn gis koo xamante ne nii jigéen la muy dox di dem nga am ndax tàmbali woon nga ko ci sa biir kër mm. nga yëkkati sa seru jigéen buy dem wala nga nga jël ko di ko tàpp ko di def genre yu sew sewaan yooyu nga xamante ne ay xeetu doyadi la xam nga nit Eva boo koy yar da ngay fexe ba lépp loo xamante ne jikkooy doyadi la nga fexe ba nit ki du ko tàmbali macha allah tàmbali googu ma koy tàmbali moom mooy waral bu génnee ca mbedd ma di def naka su sudul noonu mais suñu borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama mu gënal ko ci lépp lu mu bind Eva comme ni ko Ndoye baan waxee nit ki kenn ku nekk mm-hmm. maman ba ngay def lu bon comme ba nga koy def xam nga fa nga koy defee dafoo dina jàpp la dégg naa dëgg de waaw ki ah. li muy def xamul fu mu koy defee mm. mën na ko tàmbali yëgul yëgul yàmba yi moom xam xam xamul fu muy fu weñ yi biiwee maa la wax lii mais fa fa comme xam nga son weñ yi fa muy biiwee ah. nga bàyyi leen fa dem dem fa muy selewee di ko fa defee c'est parce que dafoo dina jàppale dañ laa utali kër ma bëgg la <laughs> macha allah waaw ndeysaan ah. loolu nag moom mooy nekk li nga xamante ne nii moom moo dem ba yàq suñu société xam nga suñu maam Borom Tuuba radiyallahu taala anhu dafa waxoon ci jamonoom ne haza hmm. zamanu aqbahu zaman hmm. daf na moom maam Borom Tuuba mu ne gis nga ci jamonoom la ko waxoon de avant 27 mu ne woon jamono ji ñuy dund moo gën a yées ci jamono yi hmm. waaw kon mam borom Tuubaa ba dikkoon ci jamono ji kon lu muy wax hmm. avant 1927 la waxoon ne jamono ji ñuy dund moo gën a yées ci jamono yi waaw kon ñun fan lañ toll joj eh, Eva man je me pose la question pour savoir man loolu daf lay won hmm? nit ñi nga am ci yàqin na ni. Mhm. Euh, nitu yàlla lañu. mu ngi noonu macha allah noonu ci seen jamono segam jam seen jamono la jamono yàqoo woon nga xamante ne yu bare daawul woon xew. Mhm. waxuma la ak ñun suñu jamono ji waaw booba booba lañ waxoon waxuma la léegi nga xamante ne tey foo làmb da daj daj safaan. Mhm. boo xoolee gis safaan boo làmbee daj boo bëggul xool sax ñu këpp la ko fa. cee teet boo bëggul xool. ñu këpp la ko Ndiallo Ndiaye bisimilah man day <laughs> vraiment li tax waykat ba ne àdduna daa metti mbër moo daan beneen dëkk lay fu ñu fu ñu muccee mm. xam ne yàlla la neex de mm, mm, yàlla la neex macha nag day dem dugg ci éducation de base dëgg que ca ngay jombee ca ngay nange jomb naa nangam de base dëgg euh, waaw Eva man fi fu nga daanele foofu lay dooree ah, muy ma ñàkk jomb jomb xam nga nit bu fekkee danga nga fu baax ñëpp sax juddu fu baax mm-hmm. mais ni ko seydaa waxee. Mhm. soo jëlee sa soo juree sa doom. nga gis ko ci yenn habitude yi mu commencé da nga ko koy tere. xale boo tëbee dóor ko du xam li nga ko dóoree lan la da ngay jàpp ci loxoom parce que xale boo nee nipp ci loxoom rek jubal ak moom néeg wala fu kennewu rek xam na la mu fay la fay fekk ji xam na ne deful jàmm dëgg la nga ne ko nit teg ko mu toog nga am ñaari baat yoo wax ci moom man damay wax ne nit dañu war di communiquer xale yi bu ñu defee naka su noonu rek jël leen dugal ci roq nangam nangam soo ko deftee bu subaa dama lay dóor daal di dóor bu saf ci loxo bi ni bu subaa nii laa lay def du ca dellu wala bu ca delluwaatee yow bu tàyyi ci loolu mais ñun parent yi dañu xaw a démissionné ci suñuy njaboot loolu moo ñu daal ñun jigéen ñi parce que ku xëy suba rek gàddu nga sa sac génn dem xale yi nekk ci biir kër yi nekk ci école yi nekk ci jardin d'enfants yi nekk ci daara yi nekk ci powum koñ bi ak biir kër yi parce que da nga gis xale boo xamante ni li tax muy am habitude di jigéen gis rek bëgg ko sàkku ji dafa daf ko commencé ci bi muy xale xale xamul yàlla mais xam na yar te ñun dañu desee yar suñuy njaboot te doom boo ko juree da nga koy teg ba bu màggee moom mooy yedd boppam man jomb naa def lii man jomb naa def lii man jomb naa def jomb jomb boobu nag moom la ñu amatul parce que boo amatul jomb jomb lu la neex def boo amatul jomb jomb lu la neex def te dara du fees sa bët surtout nag jamono ji nga xamante ni man gis naa benn xale boo xamante ni da def boo la fekkee nga toog day ñëw dend ak yow tafu la nii nga defe ne dafa bëgg xaalis boo ko joxoon xaalis sa bëgg ko dalay taf rek jël bopp bi teg sa kaw dënn ñu naan bëgg nit. dafa bëgg nit dafa bëgg nit. ma ne leen lii du bëgg nit. ma ne leen yéen a ngi fooyal nee ki dafa bëgg nit. def na def na gune weng ci bi mu nekkee bi muy am quinze ans. 15 ans bi muy am 15 ans. te xale boobu xale bu tuuti. def na gune weng muy viole bi ñuy waxtaanee. mu violé benn xale bu ndaw. te moom 15 ans lam xale bi mu violé mu amoon 4 ans. parce que habitude boobu mu tàmmoon ñu naan dafa bëgg nit dafa bëgg nit kenn mësu ko cee dindi. Mm-hmm. mais kenn xamul woon plaisir bi mu doon am di tafu ci kaw nit ñi noonu. dafa ko góor daawul fekk góor mu toog mu tëdd ci kawam de. moom daal jigéen bu mu fekk boo ñëw ne salaamaaleykum mu jël dënn bi taf sa kaw. taf <laughs> jël bopp bi taf ci kaw dënn bi. Mm. di get plaisir am. ñu naan dafa bëgg nit dafa bëgg nit. xam nga boobu bu fekkoon yaayam nit la. Mm. dama lay woo boo ko defee benn yoon ñaar dama lay woo parce que du sax yar ay gan toog ci saal wala nit sessi la xale bàyyi lu mu doon def ñëw rek tafu ci kaw kooku. Mm-hmm. bu kooku demee dinaa la def loo xam dutu ko fàtte. yooyu yëpp ci xeetu yar la. yëpp ci xeetu yar mais seetaan bi dafa ëpp. ñi toog ci kër yi dañu mën a seetaan ñi nga xam dañu xëy dem bu ñu wàcc see amuñu jot lijjanti seen doom. ci li nekk bi nga duggee ci kër yi. macha allah dañu koy remercier bi mu duggee ci biir euh, kër yi. Mm-hmm. ne kër yi itam toujours bu Eva di wax ci boppam lay tàmbalee. da ngay gis yaay joo xam ne dafa ñemee sàgganu lool. dañu koy gis. taraxlaayu suñu xeet bi ñu bugg noonu. Mm-hmm. te ñu taraxlaayu nekk ci kër. Mm-hmm. te ñu di jaabante mu neex la rek nga sol lu lu yaraax nekk ci kër. Mm-hmm. ne dama nekk sama biir néeg laa nekk sama biir kër laa nekk ñun dem na. ba sunu ay xeetu pyjama. dañu ci war a bàyyi xel. parce nekkuñu ñun kese dañu nekk ak sunu ay doom. te duñu ay tubaab macha allah. mag ñu jëkk ña da daan dëkk ak ñoom. nga dëkk ak sa maam doo mës a séen boo sàgganee tës kanam xanaa feebar dañuy feebar sa booy defal seen tànk wala dara nga ni ndeysaan tànki soxla saa ngi nii mësuma ko gis dafa ñuy dal dafa ñuy dal mm-hmm. Mm-hmm. yooyu yëpp ñu war koo delloo si ndoy baan parce que waxin na déggu ma ma ne bu bu jëkkaan da ngay am sa way jur mm-hmm. ngeen dëkk ngeen dëkk ngeen dëkk doo mës a gis fiiwam doo waa dégg nga doo ko séen mhm. ba dem ba mu màggat ba mhm. tële sax nga koy defaral tànkam mhm. sa xel ne saan maam day kenn mosul seen sax catu tànkam waaw loolu daf ñu daan dal eh, léegi sàgganu yi ci biir kër gi dafa bare yi ñuy accepté dafa bare gan day ñëw xale dem toog ca kawam yeneen ak yeneen dëkkandoo bi day nekk xamoo jikkoom xamul sa bos ngeen dëkk ci kër goo xam ne xat na kii day nekk carax dugg ci néeg bii kii ne yëf réeroo boobu di am ci biir kër yi. Hmm. defe na day am désordre bu mag bu mu. effectivement gis nga gis nga gis nga responsabilité dafa doy waar. Hmm. soxna si xam naa danañu wax la ni ci diine wax. Hmm. responsabilité responsabilité. nga am jabar ami doom. nga nekk responsable yow papa. man dama contre papa yi nga xam dañu jur doom. ñu joxe ko jili wala Babacar jox naa la sama doom ci ay yaxam laa la laaj. yow yàlla. yow nga ne yaa da ngay takk jabar mm. takk jabar jur doom mm-hmm. yàlla ne la sàmm ko mm-hmm. nga jëm mm-hmm. joxe ji ko naan ay yaxam laa la laaj pour la daw ñu ci bari daw dépense ak daw responsabilité moo tax ñu koy def kook nga ne ay yaxam laa ko laaj c'est bien su dee nit ku baax lay bien mu def ngaa yaakaar ñu am yar ñu yàkkataan gone ga ca kër ga nga xam ko muy góor ñu ko fay def na ko su du noonu nga xam ko mu dem ba siiw nga ni rus naa ko porter plainte pas kii nga xam ne moom laa ko joxoon. Mm-hmm. ni ko ay ya xam yaa ko laaj. ndax mm-hmm. pourquoi sama. maam la ci man wala mm-hmm. sama sëriñ la wala sama doomu baay la wala sama mag la et tout te leer na ma loolu yow lii lii lii lii lii lii lii waaju di waaj yi def sa doom soo ko defoon tey ci kaso bi la la jëme ñeme woo ko sax ki nga jox sa doom ni ko ay yaxam laa la laaj du la jox doomam moom du la jox doomam parce que est-ce que nawloo na la sax balay jox doomam yow nga jël lu toll ni nit jox ko ko di ko ay yaxam laa la laaj mu dem jëkkër kër ñu ko fay def na ko su noonu nga xam ko dëgg ci tànk encore damay contre yéen jigéen ñi di ngeen wax ah sama doom ji de sama ko jëkkër a ko violé su siwee sama sëy tas ay soucis foo ma jëm nga nëpp nëppal. Mm. sacrifier sa mm. ma liiral la dara. Mm-hmm. salaam madame mes encouragements à toute l'équipe pour le beau travail. ma femme est victime d'attouchement de la part du frère de son père. ça s'est passé quand elle était petite. je lui ai demandé de le dire à ses parents. mais elle est réticente et elle en pleure jusqu'à présent. Mmh. elle est en train de vous suivre. comme ni nga ko waxee. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla. souvenir rakku papaam moo ko doon làmbatu. rakku papaam mhm. moo ko doon def loolu et mi ngi seetaan. chance am sax mooy ne am na jëkkër bu ko bëgg ba di toppatoo li yëpp ci moom te mu naqarlu ko ba ne na ko waxe mhm. d'accord màgg na léegi ndax daf koy waxee loolu question la waaye chance bi defe naa aujourd'hui c'est que moom madame vous a madame am na jëkkër bu mel ni yow mhm. kooku tam ñu ngi la ci remercier mhm. xam ne daf lay neex mu waxe ko mu mhm. neex la nga encadrer sa jabar parce que yàlla may na la possibilité boobu à vous de voir et de juger en tout cas ñu ngi leen di féliciter di leen encourager ci union bi parce que ci union bu jege ci ànd bu bu jaxasoo ci ngay oser dénk keneen ki sa bopp mu dénk la boppam macha allah yàlla na ànd yëpp dëggu. allo asalaamaaleykum. ah waaleykum salaam. soxna si maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. di rafetlu émission bi bu baax a baax. alhamdulilah. Tata Eva maa ngi lay nuyu tonton Ndoye Bane ak soxna yi toog foofu yëpp. Mm-hmm. ndeysaan. ah thème bi ngeen yëkkati dafa am solo. dëgg la. parce que dafa métti nga jur sa doom fa nga ko war a juree yar ko ba mu màgg. Mm-hmm. di xaar ci moom bés bu rafet. nit nekk ci kër gi gontul xëyul gorul yàqul dund na avenir am ba pare violé sa doom ñu ne kenn du ko tëj ndax dañuy xool mbokk moom bu xooloon mbokk wala muy xool lu rafet est-ce que dina yàq sa avenir u doom xam nga dañoo nekk ci société boo xamante ne nëpp nëppal moo ñu sonal dëgg bu jotee da nga koy wax mu jub ca kaw bu ko defee ñeneen ñi mën cee jël leçon mais da gis xale bu màgg amagul sax lu dul fukki at avenir am yëpp nekk ci kanamam. ñu violé ko ñu ne kenn du ko tëj ndax mbokk. loolu tamit parfois day métti dañoo war a xoolaat toogi ni xoolaat yar yi xoolaat doxali ni xale bu ne ci kër nga xamante ni sa kanam la yoroo war ngaa mën a am kersay def ko yéen nii war ngaa mën a am gàccey def ko yéen nii bu dee nee nga dangaa feebar man gëmuma ni feebar la parce que nit feebar wala nga sa xel matul ci sa bopp nga koy njëkkee ci say bagage ngay ñi ko yàq mm-hmm. wala ngay def di fitnaal sa bopp nit ñi xam ni mm-hmm. yow mii am nga lu la dal mais yenn yi bon la mm-hmm. dëgg bi lañu war di wax te xam ne xale yi ci kër gi xale yi ci kër yi war nañ leen mën a séex nga ba leen def yenn yi xale yi xale yi ñooy avenir u xale yi ñooy avenir u mais dëgg bi laa bëgg ñu koy teg ci taabul bi di ko wax sama xol bi dafa tàng dafa tàng parce que dama ci gis benn cas bu ma métti te mujjul fenn fenn fenn la mujjul lu dul ay mbokk la patati patata xale bi boo waxtaanee moom conversation lu mu xóot xol xale bi day mel ni lu sa sama xol bi dafa tàng ndax dafa mel ni maa ko jur affaire bi métti ma ci sama biir xol bi mm. asalaamaaleykum est-ce que allo allo allo euh, soxna si est-ce que xale bi am na prise en charge ñu ngi koy assister di ko gunge no xale bi màgg na léegi màgg na mais ba mu nekkee xale bu la nettaliwaat affaire bi fi mu jaar ba nii mu toll nii sa xol bi day tàng. ñaataat la am fu mu nekk nii. actuellement war naa am ay vingt ans yooyu mais ba mu nekkee xale la la ko affaire bi daloon. mais mi koy mun di koy wéyaale ba tey. d'accord mais boo ko waxee. Hmm. macha allah moo tax dinañ ko boolee encore une fois ak soxna Anne-Marie Fall mi fi woon démb parce que moom itam wax dëgg yàlla ak euh, ñamuy àndal hmm. dañuy yëngu bu baax ci gunge xale yi nga xam ne dañu dund situation bu difficile woon wala ñu nekk ca hmm. macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax doy baan dafa am yu doy waa te daw yaram c'est parce que la société bu hypocrite lañu am ma waxaate ko ñu nga bâtiment société ñu lalati la ñu ŋàbbati ma mais yow dafa mel ndax sa sëriñ digalu la ñu lay ŋàbb ah, wala man xam na ne ŋàbb gi nag xam naa ni mooy sa mooy sa affaire mooy affaire bi <laughs> ñun waaye nee na waa yow benn waaye nee na waa yow ndóoy <laughs> nooy def ak waaye waa internet ba yooyu man ko man man aw man man du ma gis affaire yi sax mënoo man ko nag loolu mooy sama gàllaaj mun mu mën ko mu mën ko Sénégal muy réew moo xam ne su la saagawul rek baaxoo mm-hmm. ñi saaga ñëpp ay nit ñu baax lañu mm-hmm. moo tax ma ne la société bu épo hypocrite lañ am mm-hmm. biir kër yi da ngay gis fii bokkoon ni ndey ak baay yéen ñëpp ngeen bokk nekk ci biir kër gi sa jabar ki violé sa doom moo ko ñaani woon de góoma de sa jabar ki ñaani woon sa jabar ngénte sa doom jii doon bébé nekk ci biir kër gi ba am trois ans quatre ans ki ko violé moo ko ñaan woon moo yoroon góor ga ba ñuy may ba ñuy dakk may jabar jooju jabar jabar jooju léegi nag ji kooku noonu nga bëgg ko porter plainte teg ko ci yoon parce que dafa yàqtaan sa doom mm. seen mbokk yi ñooy def réunion naan waaw lépp ci biirum mbokk la xaj mm-hmm. suturaal ko patati waaw mais d'accord suturaal mais xale bi nag léegi dañuy sacrifier vie wu xale bi mm-hmm. moo am ay jeeg yoo xam ne ñi ngi may seetaan ñoo violé nañ seen doom depuis ca ba fi Senghor jógeegul ba léegi ñu ngi fi waaw ñu xam ni violé nañ seen doom ñi ngi ci biir kër gi ñu toog ci biir kër gi ndax teraanga ndax stratégie sama jëkkër teg na ma ñu condition yu baax sama jëkkër jox na ma oto sama jëkkër dugal na ma ci gu luxe sama jëkkër utal na ma liggéey bu baax ndax am amu àdduna ñaata jigéen ñoo fi xam ne seen jëkkër ay góor jigéen lañ te ñëwu ñëw dem ñaata jigéen ñaata góor ñoo xam ne seen jabar yi ay lesbiennes lañu dañuy mu ñoo dem man li ma wax je pèse très bien mais moom. Ah, yow kay ku la xam. Mm-hmm. comprendre nga te nee nga ñaata jigéen barki démb kër Masaar xale bu jigéen xale bañ fa violé woon. te jeeg ndaw sang may seetaan xam na mu baax li ma ko woo naa ko téléphone. mu weddi ko. te fekk boobu ñoo ngi preuve yëpp yi wane ni xale bi mu ngi ci biir kër gi dañ ko violé ki ko violé rakku jëkkër ji la. Hmm. ñuy nëpp nëppal affaire bi. xam nga ba am na ay autorités yu ma ci woon man autorité ya ma woo jox naa leen élément yal ne ñoo xam xamu affaire bu foofu mujje mais man daal man li ma mën mooy alerte dénoncé. suñ ma woowee ma jël na nga xam ne moom laa ci jox ko ña ma ko war a jox fa la fa la sama compétence ay mën a mën a mën a yem. dëgg bu jeex. da ngay dénoncé di alerté. waaw la ca des nga teg ko ci loxo ña koy àggal. Mm. waaw mi yaa benn élément xam nga soo ko tegoon léegi di nga sa am sa mbaalaar gi loolu laa koy faje di nga fi jooy jooy metti te ndaw soosu. waaw <laughs> <laughs> déglu déglu. Ah. xamante ne bii moo yàq sama àdduna yàq ko ba mu yàqu yeexet yeexet mana moom ñoo bokk ndey ak baay sama mag la ñoo bokk ndey ak baay loolu bi moo koy def xale la mais après ma dem ba ginni mu di ma ko def ko naa ma soo ko waxee dama lay rey soo ko waxee dama lay def nii soo ko waxee dama lay def nii ma ragal tiitaange boobu ba léegi su ma ko xalaatee loolu su ma ko xalaatee rek looy baat damay tiit sama yaram di lox mënumaa jàkkaarloo kenn rek ma wax ko ko mënuma ko ba léegi maa ngi ko denc war naa am ay fan man at ndax am naa ñetti doom mais avant may sëy wax naa sama jëkkër ni man du ma jànk wax naa ko ko ni du ma jànk nëbbuma ko dara mais pour rek ma ne ko diw moo ma def loolu mënuma ko loolu ba léegi su ma ko xalaat yi damay tiit ñàkk tooy xepp xepp ndax yàq na sama àdduna trop trop trop trop trop trop trop ma kaa wax kenn kenn kenn kenn ci kër àdduna damay menacé boobu ne ma soo ko waxee ma def la nii soo ko waxee ma def la nii waxee ma def la ma noppi ko ba léegi maa ngi ko noppiwaale xanaa yow mi nga xam ne laa ko wax nii mais mosuma kaa toqal ci nopp am mosul am ci kër àddina moom léegi mi ngi ne am na ay jabar am na jabaram ba am ay doomam mi ngi sama kër yaay mais avant wax naa ko sama jëkkër ne ko duma jànk duma la wax kan moom mu ko def ne ma loolu dara loolu loolu amul benn problème dina am nga fitu mu wax ma ni loolu loolu amul benn problème ba bu ma waxul kan la garaawul loolu la ma wax loolu la ma wax moom mais pour ma wax ko ne diw rek aw ma boobu fit aw ma ko mënuma ko maa ngi ni denc ko sama xol mu di ma métti métti métti damay jékki-jékki jeex ak ba ñu naan ma lu la dal ma ne ko amana dara xam naa damaa sonn wala tàngaay bi noonu laa koy waxee te yàlla xam doy na. déglu naa li nga wax euh, yéen a bokk ndey ak baay moom bi mu la koy def moom ñaata at la amoon booba yow tam ñaata at nga amoon. juróomi at jëm juróom-benn parce que li ñu naan xale moom. lépp loo ko def rek day nekk ci xelam du ko faat. parce que yan circonstance la ko doon defee. day fekk lu nekk kër ga. damay day wàcc liggéey mu woo ma naa ñu indi añam.

ma daal di noppi bu ko defee su añee pare ma toog foofu duma dem damay toog ba mu ba ma ba ma xam ne man ma sël mu def yëpp après ma génn su ma génnee sama yaay ma ne ma yow moom loolu daal mën na ko dara ah tey dafa tàng. léegi bi mu la ko defee daal ba pare nag bi ngeen nekkee mbag nii est-ce que yéen yéen a ngi gisante est-ce que yéen a ngi gisante est ngeen jàmm est que yéen a waxtaan di demalante ak dikkalante parce que sa mag la yéen a ngi bokk ndey ak baay. non amul relation su ma ko gisee rek sama fi dinaa rës dëbëg si ba dëbëg si la waxante te sama yaay moom ma jox téléphone bi ñuy wax. naa bi émission bi. ñu ngi koy nuyu bu baax. di mm-hmm. ko massalu massa. mi ngi seetaan émission bi jamono ji mm-hmm. am na jëkkër ba am doomam te dafa wax jëkkëram dañ maa violé nii mais waxu ko kan moom violé nii ki ko violé magam bu bokkal ak baay la. na ko magee woon bariwul moom moom bariwul nee na ni nga ko magee woon bariwul noonu mais moom naa daal da ko maanaam da koy da ko yàgg def su waa liggéeyee ba wàcc. Mm-hmm. waa kër gi ñoom pour wane ni toogaayu mbedd rek dañuy toog ci mbedd mi ñëpp dañuy toog ci mbedd mi biir kër gi kenn du fa nekk. Mm-hmm. ñu ni ko dama defaral sa mag añ. Mm-hmm. mag gi nekk ci néegam mu defar ko añ indi ko ci biir néeg bi mag ak rak yu nekk ci biir néeg kenn du xalaat dara. ca la ko doon profité di ko ko def. Oh. moo ne war nañuy xalaat nag mag bu góor rakk bu góor mm-hmm. na ci xel di dem parce que jamono tukki nag na xam nga tey jii kii su doon xale bi wax seen mm-hmm. mais kii magum jëmmale léegi bu yor <laughs> am jëkkëram am ñetti doomam di sëy mm-hmm. actuellement nii namul dara elle est à l'aise et tout ñu nee na heure bu déggee mag yi wala mu gis ko day tiit ñàkk tooy xet mel ne dañ ko sotti dox te mag ji mosul ñëw présenter ses excuses non non non man ak ay jabaram ñuy dund seen dund tabaski Korité la ñuy déggante te seen yaay moo naan ko moo moo koy paas téléphone bi ne ko ngeen baalonte ak affaire yooyu seen yaay xamul lu xew nee na première fois mu wax ci nee na bi ñu commencé thème bi ba léegi day yendoo day yendoo jooy di wax affaire yooyu euh, noonu la demee te lii mi wax nii moom dund na ko te ñu baree bari ñi seetaan émission bi dund na lii ndaw si di wax te xale yu jigéen yi laay waxal parce que ñoom ñëpp ñu ngi nekk en vacances di ñu seetaan mm-hmm. vraiment ku leen laal seen yaram fu mu leen warul laale ngeen dénoncé ko wax ko papa ak mama ku leen laal def loo xam ne c'est pas gentil noonu lañ koy tuddee. Mm-hmm. wax leen ko seen papi wax leen ko seen yaay yi. su ngeen demee à l'école mettre bi fóon leen euh, noonu laa ko mën a waxee def mhm. leen un bisou sur la bouche mhm. vous venez vous le raconter à maman mhm. si un tonton vous touche racontez-le à maman et à papa racontez-le à qui de droit à tout le monde boole leen leen suñu la tegee paaka mënuñu la rey bu la waxee ne dama lay rey xamal ne du dëgg soo demee nga ni maman diw nee na daf may rey il me fera du mal parce qu'il a fait ceci ak il faut tout dire il faut tout raconter parce que tout. Mhm. on ne touche pas ici on ne touche pas mhm. ici on ne touche pas la culotte. Mhm. dama koy wax toujours sa euh, monitrice maîtresse ak la nounou. ak papa ak maman jeex na. amul keneen. maîtresse bi. nunu bi ak maman doy na. yenn saa nga am ci nunuy wuyu nag ay mm-hmm. nunuy wuyu am nañ de. ah yal na ñu yàlla ah, muccal saa nga boo xam ne. moom ngi toppatoo mm-hmm. doom bu góor. bi di mën a dox nii nekk xale rek mu doon nunu bu feebar rek xaw ma feebar. Ah, moo tey jël xale bi ah, mu dugg suñu kër waay. Eva Eva tàng sax xam nga lu ñuy ñaan. yàlla bu ñu yàlla wanaleeg nit ñu bon ñu mel noonu yàlla ump ñu ko ump ko suñu njaboot parce que Eva dañu fi ñu toll nii ah. yàlla xam na ni kenn nekkatu ci jàmm dëgg que bu fekkee da ngay daw jàmbur yi calculer ko sa biir kër rakk bi nga bokkal ndey ak baay sa ndijaay sa maam sa sa goro mm. sa rakku jëkkër mm. sa cousin jëkkër mm. muy wax muy yoo xamante ni bu jëmee kaw adduna tas mais na àdduna tas tama tama am sama jàmm mm-hmm. parce que ñi nëbb ñëpp lii moo leen moo tere moo leen xañ jàmm mm-hmm. parce que xam nga di dox ak benn xalaat mm-hmm. mu nekk ci sa bopp dippi xale ba nga màgg kii li ko tax a wax mënatul woon tey lii la télé bi heureusement bi nga xamante ni nag wareef moom euh, place la boo xamante ni lépp la fi nit ñi di réglé muy sëy yeeg naqaru xol yeeg macha allah lépp ëmb na li mu ëmb dafa bari kii bu waxul woon noonu lay deewaaleeg moom. xoolal liñ la def depuis xale sa mag boo ndey ak baay lu ko gën a ñaaw. te li ci garaaw njaay jaata. mooy ne moment bi nga xam ne attouchement yooyu day am ci yow. soo nee dafa lay fekk dans l'inconscience l'insouciance xale nga xamuloo ràññewuloo nit ki di la def yenn ni nga màgg nga war a xalaat ne ndekete yoo tonton diw boobu woon li ma doon def warul ma ko def ndekete yoo tata diw bu ma daan yoon di tàngal di ma def nàngam waruma ko def te kon moo tax luñ ci wax rek doyul te ñu bàyyi encore une fois di wax suñu doom yi del noppi bul nettali del nàngam del nàngam nanu ko bàyyi am man gis naa benn bu wayjuru xale bi demaan daf koy ne démb yaa ma def nangam bu soobee yàlla tey doo lekk mais savez boo ko am na nunu yoo xam ne dañ leen di dénk doom mm-hmm. te du ñu jox xale bi mu lekk par paresse sa doom day xiif du lekk mhm. te yaa ngi fay ka nga xam ne moo koy yor coucham bi fa la koy bàyyi mhm. mu yàgg ci lool parce que am na tayalu mhm. jël couche bi changé ko ñun ñëpp téléphone yi moo ñu moom léegi yow nunu nga yaa ngi bëgg toppatoo linge u bébé yaa ngi bëgg toppatoo lekk bi bëgg defal bébé li war ci moom te yaa ngi dëkk ci téléphone bi allo waaw ba ma jógee dëkk ba ba ma jëndee greffage dinaa ko yóndee horaire bi yooyu yëpp ñoom Evatra dañ koy def te jaaduwul soxnaa mi macha allah rabbi ni nga ko waxee rek dañuy topp whatsapp yi di sab rek. waaw <laughs> dañuy dañuy topp whatsapp yi di sab moo ñu sonal. na bu ñu nga ne dañuy topp whatsapp comme li ginaar yi di def di sab ñun loolu loolu moo ñu sonal. ba tax ba la ñu war a def euh, duñu ko def Eva. xam nga la ñuy wax ne góom su wérulee Eva saay boo ko bombee mu wunni xam nga luy wunni. Mm. Mm. dellu si waa dellu si. Mm. loolu mooy kaawu viol nit ki su ko dundee heure bu bu gisee ku ko dund wala ñu waxtaanee ko rek xolam jóg. Mm-hmm. te yow ma nga ko def te kenn ku ne la nga def dafoo dina jàppale de gis nga hmm. nit ñi daf fu ñu léegi eh, ndoy baax non fàtte moom xaju ah. fàtte xaju fi nëpp nëppal gi moom lañ war a bàyyi ci biir kër yi fa la tàmbali comme ni ko Ndoye Bane waxee dañoo mën a nëpp nëppal Sénégal da nga ci gis koo xamante ne wóor na ko ne liggéeyul deful dara mm. ñëw fekk koo xamante ne la ak ak ak jabaram ñu dund ci biir kër yow mu wóor na amoo xëy amoo gont tëdd ci biir kër gi di nelaw ba heure ba la neexee man maa la dul fat Ndoye Bane mm-hmm. gis nga jamono ji ci fulla non il faut nga am fulla pour mën a dund gis nga mm. Ndoye Bane jamono sëriñ Cheikh Tidiane si al maktum da ko doon il faut nga am volonté da ngay am volonté wu ne man mii dama bëgg a samp sama kër nii laa ko bëgg a sampee te dama ko bëggee defee noonu laa koy doxalee mm-hmm. sore nga ma waaye dama bëgg nit samp sa kër samp sa ko gis nga góor ci boppam sax bu amul fulla ci biir këram du juboo ak soxnaam du juboo ay njabootam ndax du xam nu muy taxawalee biir këram ndax dañ ko wax soxna si lii mu woyee boobu mu woyee da nga tase ku sopp soxna si mm-hmm. da nga tase ku ko sopp dëgg la boo tase ku ko sopp nga dikk gën a sopp boo tasee ku ko soppul soo dikkee indil ko ay jikko te boo ko indilee ay jikko sa sa jour du neex ndax koo xamante ne moo la war a neexal sa bés nga bëgg a naqaral xolam sa bés du neex hmm. a wax Eva <laughs> mooy nit ki soo nekkee ci sa am fulla ak fayda ak volonté wu ne man mii kat damay xëy suba dem di liggéey hmm. sama kër gii ku fi nekk doo xeeb liggéey hmm. naan bureau ba laa war a liggéey sama mag fa lay liggéey su ma ko amul fi laay toog tëddi nelaw su ma yeewoo kenn du fi tëddi nelaw ñëppay jóg di nga xëy dem uti loo def ak noo ko wutijee mm. suñu wàccee wàccandoo bokkandoo lekk bu ñëpp tëddandoo kenn ku nekk dina xam sa njaboot fu mu ne mais yow di liggéey bàyyi ay magu ponko la magu jëm koo xam ne bu ñu ne ko jabara ngi mun a dooma ngi amul jabar amul dara tey lekk di naan yaramam di laaj muy def la ko neex mais man du ma ko may kenn Eva dañu waxante dëgg Sénégal li ñu fi war a wax moom moo bari li ndooy baan di wax comme ñun suñu réew mënuñu koo jaay dañ mm-hmm. fexe ba lijjanti nag biir kër yi nag xool lu ñu fay toogee macha allah dama fi seen taskatu xabaar bi Chérif xanaa dafa ñëw jël si ay info euh, Chérif lii rek mot na wax dëgg yàlla mot na reportage le viol na ko waxtaanee man du ma la bàyyi nga wax ko leen ndax man maa leen di alimenté yow yaa ah d'accord non rek man la ñuy li ñu ah. ko fi gis. source d'inspiration et de et de motivation. bon mënu ma fee ñàkk nag. macha allah voilà mu am itam ba tey yi ñu dee jot. Mhm. soxna yi dee leen yeewu guddi di xool seen kër yi. Mhm. nee nañu dafa am euh, woykat ba dafa ne. Mhm. président Youssou. ma ngay laajte vingt jot na ndax xam ngeen. fu seen doom yi nekk mais daf ci am jigéen yi mën nelaw ba mel ni kii toog ci digg bi. Hmm. waaw. am benn jigéen joo xam ni. yëgul lu xew këram. lu ma de. ndekete booba boroom kër ga. benn nunu moo tàggu ñeneen ña. Mm. ni leen euh, man maa ngi dem. waaye de yéen na ngeen xam ne yéen ñi yor kër gi. Mm-hmm. bu guddee borom kër gi nag day jug day ñëw xool li xew ci néeg yi. Mm-hmm. comprendre nga bu baax. Mm-hmm. ndekete mi ngi bëgg a wax ñeneen ñi jànq yi ne leen diw day wàcc étage am. Mm-hmm. wàcc ci suuf euh, xaw ma day jóge ci suuf. Mm-hmm. yéeg ca kaw pour ñëw fekk suñu di jëflanteeg ñun ku bëgg nga toog. ku bëggul nag nga dem. waa loolu tam gis nga loolu yi. ba tey fii jot nañ fii bés ma nag ndoy baan ñu ngeen nuyu xale boobu itam bu baax ndax dafa doon seet baayam defe naa baayam point E gii la dëkk aussi ñu baal ñu wax dëgg yàlla point E la dëkk yaayam dafa doon liggéey Euh, bi mu wanneeloo ñu mu jóge fa dem ba village accouché muy doom jooju nekk di wër baayam ñu ne ko yaa ngi bokk telle famille ca point E demal boo demee di nga ko gis maamam nag gunge woon ko ndax defe naa yaay ji mujj na génn àdduna xamul ba léegi xale boobu naka lay def gis baayam ngal na ñuy delloo si suñu xel dëgg la bànneexu dama doon dégg Makhtar Seck Mboro naan mhm. bànneexu benn minute gàcce gi lu dul dara jaru ko waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw soxna ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. ziar na ngeen bu baax. Hmm. waaw ñu ngi kontaan ci émission bi émission bu am solo macha allah. waaw di wax ne vraiment li ngeen di wax yëpp dafa am. mais man j'espère que fi mu toll nii yow li nga wax noonu am na sànq benn message boo lancé. da laata ko xale yi nga xamante ne bi ñoom dara. Hmm. pourquoi yooyu mënuñu jël ñuy jël ay disques ñu yokk ko tuuti di ko privilégié di ko xam ne ñëpp dinañ concentré wu ci télé bi parce que yooyu message yu baax la sànq ba léegi yéen yéen a ngi waxtaan mais solution yi ak dénonciation yi loolu ndoy baan ci la dëkk mhm. loolu moo tax ñu ko dooleel ruq bon ci senegal yëpp dafay dugg mhm. tout le temps rek ñëpp xam lañ loolu ko mhm. dooleel parce que tamit am na ay responsabilités yoo xam ne ñu ngi ci parents d'accord ñuy violé teguñu ko ci yoon mais xale bu jigéen bi nga romb mu mel ni nga xamante ne bii yow bu fekkente ne da nga faible tuuti dina la jaral yenn yi xale boobu lan lañ koy wax. nañ defaraat comportement xale yu jigéen yi. Mhm. loolu état bi am na ci part de responsabilité. Mhm. parce que bu ñu xoolee suñu diine yi fi nekk yëpp kenn bëgg ko. Mhm. mais da ngay gis xale bu jigéen boo xamante ne bii gis cëru jigéen moo gën a yomb gis cëru góor loolu nan nga koy def. te yooyu buñ dee déglu ay institution doy baax man dama koy chaque guddi damay fanaan di déglu ay émission heure bu jotee duñ ci sax bàyyi xel. dëgg la am ay débat am na ay moment yoo xam ne ñuy teg ay stocks yoo xam ne amuñu kenn ñu ngi jël genre dogal yooyu ci télé yi mooy ay état. soo message bii nga laata nii bu doon bëntën après yoo xam ne kenn xamu ko. Mm-hmm. Sénégal yëpp bàyyi ci xel parents yëpp bàyyi ci xel. Mm-hmm. parce que loolu gënul heure bi presque ñu bari dem liggéey lan moo tax heure yooyu duñ leen ko jox am na ay ay. émission yu bari yu xew ci télé bi ñu wax ne baaxul mais tamit yi ñoo ko ëpp njariñ téeméeri junni parce que yéen yéenay génne secret yi nekk ci dëkk bi man war a heure mu xëyee taal sama télévision laa fekk débat boo xam ne sax bu ko xëy ndoy baan boo ko dégloo la même chose nañu defaraat jikko yi bu baax ndax baax xale yu jigéen yi ni ñu war a mel war nañ leen ko mën a jàngal ci télé yi télé yëpp laa wax nag télé national ak télé privé yeeg yëpp di leen ko jàngal di def ay iskat comme mag yu njëkk yi niñ ko daan defee ay ñoom ma kuréel tey yoo mm. xam ne da nga ciy gis sa bopp mm. nga toog yow xale bi sa bopp da ngay jooy wala ñu lay léebal ba ngay jooy pourquoi parce que da gis ku jub li muy mujje nga gis ku dëng li muy mujjee mm. nga gis ku sol sol bu baax fu muy mujjee ak ku sol sol bu bon fu muy mujjee loolu yëpp léegi dañ ko jël teg ko fële kon bu doon jàng la ma ni jàng na jàng yi macha allah mm-hmm. wax na lu am solo kër yi xumb nañu lool la cay xew mënuñu ko sax xam mm-hmm. ndax ku ci nekk jigéen bu ci nekk xam mm-hmm. ngeen luy suñu problème mm-hmm. jigéen bu ci nekk boppam la tal ak sëyam nañ ko wax ca kaw yaa ngi xool nooy neexalee alaaji bi yaa ngi xool loo koy charmer yaa ngi xool yaa ngi xool le temps passe tu consacres tout ton temps macha allah ñu baal ma dafa sax jaadu ba tey da ngay jël sa temps yëpp def focus ci wujje bi def focus ci jëkkër ji fàtte ngeen ne ci biir kër gi doom yee ngi foofu besoin d'attention ils ont besoin de considération mais àdduna këf na la yaa ngi ci utum euh, naka lañ koy waxee yokkute ci sa liggéey yaa ngi ci utum solu mhm. yaa ngi ci utum yeneen ak yeneen yoo xam ne mhm. am na loo xam ne mooy sa ëllëg yaa ngi koy fàtte te boo ko fàttee boo moytuwulee bu mhm. ëllëgee da nga jooy xaj te Eva li ci gën a garaaw mooy li may wax toujours ñun dañu nekk ci société boo xamante ne dafa am mbir moo xam ne ñaara ko seq muy jëkkër ak jabar mais ko jigéen ki lañ koy jiiñ amuñu jigéen dañu war a am fulla nag. li ñu naan la femme fii noonu na la doo fi génnee fenn nag moom. te yéen ñaar yéen ko sër sër te xanaa xamoo responsabilité nag yàlla ci loxoy góor la ko teg Eva bu ñu waxantee dëgg li ndooy baan di wax. dëgg neexul bu ñuy wax naan nañu dañuy takk ay jabar pour yokk xeetu ko fi ma baal am ay charte yu yàlla yàlla teg ne fii ak ko war a takk ay jabar di leen teg yow naa wasulaa sa waru baa mokkal nañ ko mais sarxaawuñu ko la tax yàlla naan takkal ñaar ñett ñeent dafa fekk da benn bi nga yore mettre nga ko d'une bonne condition comme ni ñu koy waxee sarxaawuñu ko mooy mooy yaataluñ ko yaataluñu non non non non kenn yaatalu ko mais yàlla ba mu naan takk leen ay jabar na fekk na yow ki ngay takk boo ko indee ci biir kër am nga foo ko dugal mm-hmm. njaboot ga cay judd mu wóor la ne kii euh, góor ñi bu ñu juddoon mën nañoo tëdd fii jigéen ñi bu ñu juddoon nañ mën a tëdd fii mais yow sa jëkkër ak jabar bu ñuy jëflante sax njaboot ngi tëdd di xool li ngeen di def Eva nañ waxante dëgg viol bi nag ñun ñoo ko jàngal suñuy doom ah, nga ñu ñoo ko jàngal suñuy doom amuloo matle woo jox sa bopp fukki jabar ak juróom waaw yow di séq ak sa sa sa sa soxna ci kaw lal bi sa njaboot a ngi tëdd bi ngay def di xool li ngay def ah, parce que amoo foo leen dugal amoo te xale dafa bañ kumpa te xale dafa bañ li muy dégg ci son bu ko bu xamul lu mu doon dina jóg jéem koo yër te xale yeew nañ yeewu goo xam ne nañ yër di gis te duñu def benn bureau bi wane na ñu ngi gis yaa ngi wax li man maa ngi rus de ah non looloo fi am de looloo fi am na ne maa ngi rus fii la xew ci suñu dëkk bi mënoo waaw nga dem tànn soxna waaw indi waaw indiwaat. koo ca sëkkal. dooma ngi lay dégg. wala jegeyaatoo bi dana tax. xale bi xam la mu warta woon xam. dëgg la subhanallah bu jigéen dina ko jéem a essayé ma may ko ko kooku nga wax ko góor kooku nga xam ne dafa takk jabar. Mhm. juri doom ba amul fu mu denc doom yi. waaw kooku koy wëri ñaareel. Mhm. juraat ak moom ay doom. dëgg la doom ya bari. Mhm. sëy boo gis. ku góor ki dina dee wala ku jigéen ki dee wala sëy ba tas. dëgg la. ñaar yooyu fi am dara continué wul ndaw sa dina dee wala waaja dee wala sëy ba tas mhm. Mhm. njaboot ga nefa nag mhm. doon 132 yoo xam ni seen baay dee na wala seen yaay dee na wala sëy ba tas na abandonné nañ ko xale yi nag kër gu ne ñu ne fa tasaaroo fu nañu roof fa benn gone xale yi ñu leen di violé rek mm. man li may bëgg a laajte dama koy jox jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi ah danaa interpeller soxna Ndourette mon mon ami et et Koddu Dieng danaa ko ci woo. Mm. woo ci ki nga xam ne itam mooy Mamiko. Mm-hmm. laaj leen ñu waxal ma ndax ñu laajteel ma polygamie dafay defar wala dafa yàq. Mm. mën naa defar mën na yàq Eva. macha allah boo ko defee ni la ko yàlla sante. dafay dafay defar lu dang nga war ko laaj ñooñu. Hmm? parce que ñu ngi wax ci xale yi nga xam ne famille bi bu pëcc xoowee mhm. Mhm. boo amee doom nga dem ba mënuloo leen surveiller parce mhm. que xam ngeen ne yu bëri mi ngi am booba bàyyi a dem ayee feneen contre ma polygamie mu leer sama yoon nekku ci ku ci nekk da nga ñaan sëy ba ngay sëy neex ci yow tout simplement waaye maa ngi ñëw xale yu bëri ñu ngi seen fitu nañ ko wax ñu ngi ko jële ci baay bi mu dalee di absenté ci kër parce que ñoom maam ba nu daan seen wàlli polygamie c'était une grande maison ñu am nag seen personnalité. Mm-hmm. di gérer seen kër. Mm-hmm. baay bu ayee feneen du tee baay danga ko teg bët da nga xam ne di heures. Mm-hmm. dana dugg ci biir kër gi te dana la romb. dëgg la dana yër li xew sa kër yaay. ñu dëkkee noonu benn étage ñaar ñett. soxla yi dëkk ca. waaye léegi. ci jamono bi ñu ne. kii day dëkk. fii que le dëkk Arafat que le dëkk fële le finalement il se perd surtout kenn du d'accord ak man le sa se perd <laughs> waaw da nekk fii mhm. dàll ba nekk fee mhm. kawas ba nekk fee yaa ngi seet lii fi mhm. finalement yow mais eh loolu pour moi loolu loolu nag tey tey da ngay euh, ma ma kii dañ may tëj tey président Macky Sall bu fi amoon ñetti ja ñetti soxna ah. soxna Mariam Faye ah loolu <laughs> géré ko day jafe may woo tëj ma tey parce que day jóge palais ba jàdd fan résidence jóge dem Kaolack <laughs> et ça risque xam nga Eva dañu naan kilifa ak ki ne fàng duñu ah. <laughs> soxna Njaay xam nga dañuy wax ni <laughs> kilifa ak ki ne fàng duñu benn ki ne ki ne fàng ah. xam nga nekk kilifa mooy ki ko matal dama koy wax Pape Malick papa yi hmm. kii la ci mara masha allah rabbi keroog dafa ma woo téléphone ma ni ko papa man dama la naw moom mu woo ma ne ma su ma la gisee ngay waxtaan damay am fierté ci yow ma ne ko man yow li ma la nawee mooy lenn masha allah yar na ay njabootam yar leen ci diina islam ba moom bu fa nekkulee nekkul Saint-Louis daal di ñëw fi Dakar Dakar la nekkoon sama léegi dafa dafa ñibbi Ndar mm-hmm. terewul xale yi bu timis xasee passé dañu xam ne Taysiir dañ ko war a jàng ñu jël Taysiir bu jàng ko ba mu jeex tàkk ka war a dem ca xar ya xonti leen xam na boppam mm-hmm. ki war a bale xam na boppam. organisation. ñun ñee jullit ñi macha allahu rabbi alxuraan la yàlla indil mu nekk loo xam ne daf ñu war a guider mais dañ ko fi teg. Mm-hmm. du mës a a mm-hmm. lu yàlla wax. Mm-hmm. duñu a a neex. jabar gi daal suñu leen bëggee yar ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa te nekk fi. nañu def yëfu kilifa waaye na fàng ba pare naan kilifa la boo bëggee wax sa njaboot li nga koy wax du la déglu du la faale bis boo demee dana sama papa papa na sax waaye of waaw waaye ëf waaw dégg naa boo ne ëf rek yàlla tam ofaale mm-hmm. la sax nag ku ne yàlla ah, xam nga Eva on li ma ciy teg <laughs> mooy euh, foofu nga taxaw sànq nga ne waajur yi bu ñu ayee fii ayewaat fële mm-hmm. njaboot gee duñ leen am ku leen sur mm-hmm. dama lay dëgg la loolu dafa am benn xale buy jaay marché ndox waaw euh, elle est correcte nag macha man moom moom may jaay ndox ma su ma toogee ñaari fan quatre jours duma ko gis mm-hmm. mu ñëw ma ne ko yow ñaar ñeenti fan yëpp gisuma la dama ne ko gisuma la fan yi mun ma sam papa moo fa ay woon man ko yow ku lay jaay loo ndox mu ne sama yaay mm-hmm. ma ne ko sa papa bu aye foofu mu ne ma duma jaay te xale bi saa yu xam naa ni seen papa même bu fa ayul aussi mm-hmm. fu 5 heures 6 heures jotee mu ñibbi këram xale bi 5 heures du ko fekk ca marché ba ñeneen xale yi di te muy muy muy loo xamante ni tam lu ma metti la. ci soo demee ki koy jaayloo sax tantam la. lu ma metti la nag lu ma metti parce que. Mm-hmm. Euh, euh, man damay lijjanti xale. yàlla moo mën a too loolu dama bëgg xale yi mais da nga ciy gis xale yoo xamante ni dañ leen di jaayloo ndox ci marché yi. Mm-hmm. Eva xiif baaxul. Ah, ah. koo bëgg a nax mu xiifee rek di ko am. koo teral tëral ko. ma ngoog egg nga ci xale yi da ngay gis buñ la fekkee ngay lekk dara. la lay jaay duñ ci bàyyi sa xel. dañu lay yéeddu di la xool bu dee palaatu añ la. bu dee ndékki booy ndékki bu dee leneen dañu lay yéeddu. su tombeek muy jigéenu lesbienne. am leen day yomb. bu dee góor guy ah, guy saay saay xale mhm. am leen da leen di yomb mhm. chaque jour ma wax ko chaque jour dama koy xale boobu dama koy yedd mhm. mu ne ko bul parce que dafa correct rafet ma ne ko bu la kenn woon waaw boo jaay rek dama ñibbi mu ne ma waaw xoolal ima façon boobu te bari na fa ay mat nañ fa ay mille ca marché ma tàngaay bi ñoom ñëpp lañuy yenn yan si wa ndox yi xale yi wër ci marché yi ba naax seen xel yi dafa dem te ay xale yu tuuti du ñu ay mag xale yu tuuti yu góor ak yu jigéen. exposé leen. exposé leen ci biir marché bi. bu ca yàlla natoo mu tombe ca ak saay sax ku liggéey loo xale. loolu beneen dossier loolu am na dañu ko tere loolu am na Sénégal am na waaw dañ bien sûr beneen bi mooy. beneen bi applique beneen beneen bi mooy jaayum ndox moom. marché yi sax a gën a set demal ci garage yi. garage yi fu coxeur yi ak apprenti ak gone yi ndox mm. ah mais <laughs> foofu. parce que des fois nga gis ci xale boo xamante ni xale boo xamante ni yàlla moo koy bindee noonu day potale <laughs> tabarkaal la. garage yaa ngi jekk nga di ko xool rek am am get feeling am. Mhm. bu dee jigéen ju bon da koy xëcc. Mhm. daal di koy iri am fu mu dugg ak moom. Mhm. ndax kaay ma jëndal la ndox yi matu sax 1500. dëgg la. ñu jox la 2000 francs mm. mbaa 3000. daal lay dugal def la li ñu leer daal dem seen yoon. Eh foofu la gën a sax la viol bi sax gën a taxawee. Eh ci góor comme ci fajar ba nga dem ci garage fajar fekk emprunté yi di bale seen kaar yi. Mm. ci nga xam li xew ci garage yi lu mu. ñuy bale kaar yi laaw ñuy bale kaar dafa xumb de. nga xool mbalit mi ci nga xam lan mooy xew ci gaar yi ak <laughs> accident yu bari yi lu koy waral. Mm. ndax la fa war la waroon nekk ci beneen mbalit moo moo fay voilà yu ñuy jëfandikoo waaw nga xam ne qu'est-ce qui se passe may yow garage garage guddi kaar yëpp dañuy gaareendoo oto yëpp gaareendoo benn place mm-hmm. ña cay liggéey ñoo fay fanaan mais sawaay lu ne fay xew lu leer beneen bi mooy yaa ngi doon wax léegi naan da ngay takk jabar da ngay ndoy baan yow itam ah. ndoy baan mën nga wër mm-hmm. léegi ndoy baan da nga dem ba ca oto ya di ñëw sa sa Eva. sama man sama report reportage lii xew Sénégal. Mhm. benn rek moom ma ci dese woon ci reportage bu ma deful. Mhm. te waxoon naa la def naa ko te bëggoo ma la koy wax muy reportage morgue ya ak armeel ya te morgue yi ne ndakaaru yëpp wër naa ko gis naa la ca morgue yi la ak la fa la fa la xew lépp reportage booy xalaat def naa ko ñu ne soo demee ci garage. Mhm. dem fa guddi. dangay gis gaaraat du yëpp du gaa du du gaakaar yëpp da ngay jékki-jékki gis puna yi di def nii. di def nii ah, di def nii nga. xam nga dama ci garage yi guddi kay ay xale yu ndaw nga fay fekk. te soo xooloo seen laaj laajal xale yi jaay ndox ci garage yi. Mhm. rarement nga dégg ko naan sama yaay ma yónni. rarement. ku vacances yi lay doom mhm. ku vacances yi. Mhm. muy jaay ndox. wala koo xam ne yaayam gaañu na. tantaam di ko jaayloo ndox wala koo xam ne wujju yaayam la yaayam di sëy feneen papaam yor ko mm-hmm. wujju yaayam di ko jaayee ndox yooyoo fay xew sa doom ya dem jàngi nga jël doomi jàmbur weer ko ci rond yi di ko jaayloo di ko di ko jaayloo ndox ba ñu nga liggéeyloo ko mm-hmm. mais dafa am ay heure yoo ko war a liggéeyloo ak heure bu mu war a wàcc ak bu ko exiger yenn yi. kumba nday kumba am nday am na ci kër yi yooyu lañu. yàlla xam ne nag kenn kenn du mais nag jeeg xamuñu ne de gis nga jaay ko ndox boobu soo moytul dina dem ba yor leen. kay jigéen ñi nag dama defe ni loolu xamuñu ko nag. Mm-hmm. wallaay du tem bi sax te chaque jour jërëjëf chaque jour yàlla wane ki nga exposé ba góor ji di ko violé. di ko def nag doom nga protéger say doom. soo moytul say doom sa doom yi ñooy ñooy njëkk ëmb xale bi mm-hmm. te soo moytul su demee ba ca kanam xale boobu nga jëloon di ko raxasloo fajar mm. jànguloo ko mm. nga koy pousse ci biir góor ñi di ko yónnee ci sa sa ancien faria di ko yónnee ci sa ancien faria mm-hmm. ay jox kii ba ñu fi yoole ko fa mm-hmm. soo matul xale boobu moo lay yore yow yow jeeg bi yow sa tantam bi ko yàq mm-hmm. yow bàjjen bi moo tax tey jii soo leen joxee seen doom fen di leen jékki-jékki di cëpp seeti ko ba xam euh, ma nga fa mba ci yan condition lañ lañ ko lañ ko yore te bi dañoo toll jamono joo xam ne joxe doom dafa xewi mm. loolu da laa bëgg dégg joxe doom dafa xëy tax yàlla yàlla su encore bu may ñaan jigéen ñi lay gën a ñaanal sax ñu la ma góor ñi baax baal ñoom ay bàyyi la nu bëgg nañ leen mm-hmm. waaye jigéen ñi daal gudd leen fan yàgg ji mm-hmm. nekk seen wetu jaboot ji leen seetal seen bopp mm-hmm. macha allah parce que doom bu ne ci wetu yaayam la baax man daal solution bi may proposé xam naa ne du nit ñi duñ ko nangu ndax man ndax man damaa soxor solution bi nga lii di violeur lii di góor jigéen tàpp TAP. place de l'Obélisque mm. en direct. Mm. kii moo violé kii ñu enquête ba mu wóor ni moom moo ko def. Mm. ñoo ñëpp ñu ñëw taxaw. am na ko ñuy tàpp suba ndax dafa violé. ñu tàpp ko ñëpp gis. suñu ko doon def léegi léegi ay affaire viol jóge fi ah mm-hmm. affaire góor jigéen ñu jàpp ci nit mu wóor ni kii góor jigéen la mm-hmm. ñu tàpp ko gannaaw góor la la yàlla def bëggoo nekk góor kay ñu tàpp la rek mu jeex loolu mooy régler problème yi ku fi rey nit mu rey la ku fi def nangam ñu def la c'est que dafa am di lii ñuy waxtaane nii mm-hmm. diine ji da koo réglé. mais nit ñi ñoo bëggul ñoo ñooy xool li leen arrangé ci diine ji ñooy xool li leen arrangé ci diine ji ñu def ko mm-hmm. mais yëpp diine ji réglé nañ ko réglé nañ ko dañ bàyyi nëpp nëppali jeeg ji mm-hmm. day leen sauver seen doom yi mm-hmm. doom or doom or la doom jamaa la waroo jël sacrifier sa sëy ndax sa doom dañ koo violé nga koy nëpp nëppal ci biir kër gi mm. voilà te Moussa Mbalaar nañ ci ñëwaat di nuyu Juma Jeng Jaxate moom du Moussa Mbalaar moom mi ngi nii moom moom moom yow moom doo sàmbalaar waaye kii nga jox sa livre bi moom sàmbalaar <laughs> la aja ajaratu Diouma Dieng fi Ndoye Bane daanalee foofu lay rebondir alors merci beaucoup pour livre bi nga xam ne da nga ko dédicacé jox ko waa wareef wax dëgg yàlla Diouma Dieng Diakhaté noonu lañ ko bindee les secrets d'une réussite mm. moi je pense que toute dame en a besoin hein mm. les les femmes euh, leen longtemps soyez vraiment heureuse kontaan leen yéen ñëpp parce que yéenay soxlu société bi li ma wax naan chaque femme a son histoire et histoire bu nekk dafay servir keneen ka ca wet ba bu nu jàppantee mu gën a baax yàlla yàlla guddal suñu fan guddal suñu fanu way jur yi ak ñi nga xam ni itam ñoo ñuy denc mm-hmm. macha allah soxna ami liggéey bi wax dëgg yàlla rafet na kontaan nañu lool ci yow mm-hmm. euh, jeudi prochain dañu lay joxaat rendez-vous di ñaanal ñu may ma ma ñaanal bu baax oustaz Taïb soose li may wax rek mhm. dama koy wax ca kaw du kenn koo xam ne yéene na ko bërëb ba mu ne mhm. mhm. nit koo xam ne li ma koy jëwee man ni ka nga xam ne bu buggee ñaan ñaari junni sax da koy të ndax dana liyaat jaaree jaar doo xam sax lu mu bëgg a wax kon bu ko yii dalee ñun xam nañ ne moom nangu na ne natt suñu borom la ndax bon dugalu ko fa bon dugalu fa oustaz tey yàlla ko yàlla defal jàmm dañ koy wax parce que léeg-léeg nit dana tàbbi gi ca bërëb doo ca mën a wax waaye dañ koy wax ndax dëkkandoom la ñu dañu koy seedeel ci ak moom euh, jamono ba ma koy xam ma nga woon ca 2S 2S ak léegi mun naa dugg ci 15 ans 17 ans kon macha allah nit ku baax ay mm-hmm. euh, oustaz Tayib mm-hmm. wallaay yàlla danga ko yàgg nekkal da nga xam ne dana la nekkal te di nga ko gis sous peu de temps ñuy remercier ñi nga xam ne itam ñoo ñoo ñoo nekk ca gannaaw mm-hmm. euh, Tayib wala ca kanamam di ko jàppale mooy Iran Ndaw ak ñëpp ñi mu àndal mhm. macha allah waa Jamra ñu leen di remercier ak defkatu yu baax yi nga xam ne mhm. du ñu wax ca kaw waaye jëf nañu jëf ju rafet ca fañ ko war a jëfee mhm. yàlla yàlla fay leen ku ca mën rek na te jàpp ne fa mu ne du place am nit ku baax la te sañ nañ ko ko waxal fii ak beaucoup de fierté wax dëgg yàlla macha allah euh, soxna si yow itam Amidia tàggoo na de. non tàggoo gu ma. aywa bisimilah <laughs> allah ni ñu ko waxee. Mm. nattu la rek te yàlla ay nitam eh, lay teg nattu. Mm-hmm. képp koo xamante ne nga xaritoo nga ak yàlla. jàppal na mm-hmm. nattu yaa mi ngi ñëw. Mm-hmm. lu la ci teg rek jàppal na doyagul am na leneen lu lay xaar mais yàlla na ko fa yàlla génne comme ni nga ko waxee. di rabbi ak soxna sama magu bopp yow comme ni ma koy waxee toujours rek lu yaatu rek nga bëgg ak lu rafet yàlla na la yàlla fay sa xol xawaahu takrima ala al xusam ah. yow mi nga xamante ne ci yaay yaayu mbindeef. ni ma papa am di wooyee doon li ma doon xawaahu takriman macha <laughs> allah baarakallah hmm. xamante ne macha allah rek mooy soxna si moom tamit li fi wax am na solo hmm. mais daal nañu delluwaat ci li ñu yàlla sant hmm. fii ak ngi teg suñu tànk ci li ñu yàlla sant duñu juum mais fi ak ñi ngi ci tegg suñu tànk ci lu ñu naqari rek la ñu dëkk soxna Eva nuyu ñëpp ziyaar ak képp koo xamante ne xàmmee nga ñu rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di ñaanal jàmm foo mënti nekk jërëjëf madame Fall soxna Ndiallu Ndiaye. waaw xanaa li dénkaat rek sama moromu jigéen ñi ñu gën a am vigilance ci ci njaboot gi. di bàyyi xel te bàyyi néewal bi aussi di seetlu xale yi ku leen def ak ku leen deful. Mm-hmm. tey waxtaan ak doom yi. parce que doom boo bu la ragalee du la ñemee wax nañu ubbeeku di waxtaan ak suñuy doom parce que ñun ñoom rek lañu am ñoom it ñun lañu am kon ñun it nañu góorgóorlu ci njaboot gi te xam ne yàlla moo ñu ko dénk am na ñoo xamante ni bëggoon nañ ko am te amuñu ko ki yàlla jox na nga ko téye ak fukki loxo ak juróom te fexe ko sàmm ci anam bu mu gën a rafete te bàyyi xale yi ñuy jaay ndox ngir yàlla ci marché yi bu mu di jotee nañuy wàcc di dem añi dañ leen ko ñaan ñun ñun waajur yi ñoo koy ñaan man maa leen koy ñaan ba ngir yàlla parce que xale yi ni ñeen ñi ñuy comporté woo ci biir feu rouge garage yeeg vraiment man daal métti na ma trop. métti mm-hmm. na ma trop kon maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex. Mm-hmm. di am contentement bu baax nag di jàkkaarloog sama sista bi nga xamante ni mm-hmm. tabarkalla Evatra. di kontaan ci sama càmmiñ Ndoye Bane. di gërëm ñi ñu doon seetaan ñëpp. di wax afi amaanilaa macha allah. macha allah jërëjëf Ndoye Bane looy tàggatoo. waaw ma tàggatoo waaw. kon donc sàmm àllar gi daal sàmm àllar gi lay tàggatoo baax xam yow ñu ngi lay wax jërëjëf góor baax na baax na saa bu ma tuddee Mia loolu laa ci teg wax dëgg yàlla ñu ngi remercier sa équipe yëpp macha allah di ñaanal téléspectateurs yi nga xam ne ñoo baaxoo di seetaan émission wareef wax dëgg yàlla bu nu waxee nag wareef xam ngeen ne koy seetaan lundi ba jeudi ci kàttanu sunu borom yal na nu yàlla may dégg ak topp lu dul baax baax a ko gën ku yeboo baax ci loolu dinaa nuyu nag sama ay soppe ki may njëkk nuyu nag mooy faatim Coro Thioune maa ngi lay nuyu bu baax a baax moom taaw ci Cheikh Béthio Thioune yal na yàlla yërëm ko yóbbu ko aljana Adja Fatou Diaw itam on te souhaite la bienvenue moom ajaratu branche club des des ajaratu branché laa ko boole ñu ngi koy nuyu bu baax a baax bàjjanal jàmbur Adja Fatim Tall ma nga zone A soppe Satra ak bépp soppe boo xam ne dangaa jàkkaarloog ñun Awa Mbooj ca Sibassor duñu ñu lim du ñu lim macha allah bëgg nañ leen sopp leen yàlla na yàlla may dégg ak topp baaxal suñu jikko lépp loo xam ne lu ñu soxlawul la ci ñun mu nëbbal ñu ko jox nañ leen rendez-vous di leen wax bon appétit ba altine bu soobee suñu borom